mbokki internet seen mbokk seen xarit Ousmane Ndiaye moo ñëwaat tey di leen présenter benn produit boo xam ne internet yàgg nañu ko laaj te ñu yàgg ci def ay résultats muy le produit boo xamante ni c'est pour l'impuissance sexuelle ñi nga xam dañoo amee azoospermie oligosperme ou bien problème infécondité ñu problème ñu am doom donc seen bog seen société Boga Bio indi nañ leen Max Fort

yàlla sunu boroom dafa bind doomu aadama boole ko ak ay nattu ay jàngoro yu ko mën a gàllankoor waaye daan ñi boole ak ay gaayam yu mu joxi kéemtaan ba ñuy saafara jàngoro yu bari yu doomu aadama yi di weyaale bokk ci ñoom jàmbaar ju kenn dootul laaj aw turam muy Serigne Ousmane Ndiaye tradipraticien Serigne Ousmane Ndiaye nag di boroom xam-xam buy faj-fajum cosaan waaye ay garabam mu di ko composé ak liy bàyyi koo ci gàncax Serigne Ousmane Ndiaye nag sunu boroom may ko lool ci faj li nga xam ni mooy ndoxum siti moo xam muy bu nëbbu bi wala bu feeñ dina faj hémorroïde interne wala externe interne dina faj tension waaye it dina faj estomac Serigne Ousmane Ndiaye yemul foofu waaye dina faj rhumatisme dina faj góor gu néew kartan dina faj hépatique dina faj diabète ak sciatique ak jàngoro yu bari yu doomu aadama yi di weeyaale te li ci gën a neex nag mooy ay garabam lépp ci gàncax yi lay bàyyi ko moo tax boo ko dee jëfandikoo du bàyyi benn effet secondaire ci sa yaram ndoxum siti nag di jàngoro ju yaatu te sonal doomu aadama yi waaye bari ay mandarga ak ay signes yu mën a feeñe ci nit waaye góor ba indil ko néew a jafe-jafey am doom bu ngeen jokkoo ak sëriñ usmaan Ndiaye fajkatu cosaan nag bii feeñ da koy faj ba mu wér waaye bi bu it da koy jeex ba mu set ci yow bu ngeen yittewoo sëriñ Ousmane Ndiaye nag fépp fu ngeen mën a nekk ci biir réew mi mën ngeen koo woo bis bu ngeen jëflantee ak sëriñ Ousmane Ndiaye nag ci ngeen di xam ni àdduna moo baaxoo coow rek waaye ku wéet ku ne xam nga kalaman man mbokki internet yi seen mbokk seen xarit Ousmane Ndiaye moo ñëwaat tey di leen présenter benn produit boo xam ne internet yàgg nañu ko laaj et ñu yàgg ci def ay résultats muy le produit boo xamante ni c'est pour l'impuissance sexuelle ñi nga xam ne dañoo amee azoospermie oligosperme ou bien problème infécondité ñu problème ñu am doom donc seen bog seen société Boga Bio indi lañ leen Max Fort max fort produit tout ce qui est impuissance sexuelle ce qu'on appelle le dysfonctionnement érectile yow buy baax na ci moom moom la rek avec des résultats avérés da koy traité ba mu la cinquième produit sur le marché avec des résultats avérés tey nous di leen numéro